waaw ñu ngi woon tey fii ci New York ci Nations Unies pour waxtaanee li ñuy woowee économie sociale et solidaire mu nekk euh, secteur bu am solo ni mu amalee solo Sénégal ndax euh, président Macky daf ko def euh, deuxième initiative nationale ci juróom yi nga xam ne am na ko gannaaw bu ndaw yi noonu lay jittelee amalee solo réew yu bëri lu ci mel ni réewu Espagne lu ci mel ni réewu France ak réew yu bëri ndax nemmeeku nañ fi daanaka ci tey lu ëpp ñaar fukki réew yoo xam ne ñëw nañ waxtaanee njëriñu économie sociale ak solidaire ak ban taxawaay lañ ci war a am surtout Nations Unies ndax bëgg nañu euh, mu porter li ñuy wax maanaam résolution dugal ko ci agenda am pour session bii di ñëw Euh, loolu dinañ ko waxtaanee ci commission yi ba xool nu mu mënee nekk mais li ci ëpp solo tey mooy euh, ñun réew yooyu yëpp fi daje tey jàpp nañ ne économie sociale et solidaire bokk na ci li mën a euh, tax ba acteurs économiques yi ci nekk gën a am dimbalante seen biir gën a am gouvernance boo xam ne kenn ku nekk la nga bëgg danañ ci bàyyi xel mais surtout aussi su amee ay jafe-jafe yuy ñëw yoo xam ne kenn xaaru ko lu mel ni li ñuy dund tey euh, acteurs économiques yi aussi gën a mën taxaw gën a mën dékku loolu nag bu amee faw Sénégal nekk ci ndax dañuy waajal organisation forum mondial de l'économie sociale et solidaire bi nga xam ne war nañ ko am en 2023 te GSF euh, jiite ko di organiser loolu euh, euh, ki nga xam ne mooy maire Bordeaux mooy président bi moo tax rafetlu nañ gise bi ñu gisee tey waxtaan ci organisation bi xool ban taxawaay la ci Sénégal war a am ak naka lañ ko war a defee ndax économie sociale et solidaire bu doxee ñëpp la doxal ci fànn boobu aussi laa waxtaan ak euh, ministre bi nga xam ne moo yor wàllu travail ak économie sociale et solidaire bi nekk deuxième euh, bi nekk si vice présidente si Espagne te mu organiser daje tey bi ñu waxtaan ci naka la suñuy ñaari réew yi gën a mën a ànde gën a mën a lëkkale seeni doole ci wàllu économie sociale et solidaire loolu fas yéene nañ ko tënk ci mémorandum waxtaandam te moom ci wàllu boppam dana ñëw Sénégal pour ñu gën ci mën a waxtaan xool nu loolu lépp di amee yaakaar naa lii yëpp bu ñu ko defee nag euh, li ci président Macky Sall namoon ba def ko deuxième initiative nationale te mooy réew mi ñëpp di mën taxaw di mën a bokk ñu ngi ci tànk yooyu kon euh, ndaje bu am solo la te dinañu continuer def suivi bi fii déjà mission sénégalaise bi ne fii am na ci taxawaay bu am solo kon ñoom tamit dinañu wéyal di bàyyi xel liggéey boobu gën ko taxawal ba lépp mën a sotti au bénéfice des populations sénégalaises